Assalamualaikum warahmatullahi wa rahmatullahi tahala wa Sering ci ndigalal sëriñ basiru lo xalifa sëriñ dam abdourahman lo waa safinatul aman tu bu soobe ci njiital sëriñ maali géey mafatihul bichri ànd koog daayira mafatihul bichri sopp si mahamadul fadal bu tuuba ndaam ñoo am mbégte di bis bi nga xamne ba xonan ko amal ad mo jot di Je fatali ko njabotuk borom tuba gi nek ndam bis bi nag japp nañ ko khamis ñaar fukki fan ak juroom ñatt ci weeru décembre waye yamok fukki fan ak ñent ci mamukor bis bi nak ñu baxu ko ànd ak daayira Mawaahibun nafih ak daayira al bishr bu kër Cheikh al Fadal ak daayira kana Haqqan bu gal Serigne Salihu ak daayira jalibatul Maraqib bu tuba daru marnan ak ahlu qasida bu njenne bis bi nak ñu koy fatali mbolem serigne daara yi nga xamne baxu nañu and ak ñom liggey bi ci njàngam al qur'an bis baa ngi al khamis ñaar fukki fan ak juroom ñet ci weeru décembre yem ak fukki fan ak ñent ci weeru mamukor di ñaan kep ku borom tuba fajj say aajo sahir ak wa alaykum salaam wa rahmatullahi barakatuh wabarakatuhu Amém.